mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki nga xamné yena yéen and ak ñun ci émission bi di al Lahu wal qalam muy émission bi bind bindkat yi bind lu jëm ci yoonu murit wala sax ñu bok ci yoon wi mo xam ñu jël seen xalima di bind ci lak wolof la wala ñu jël seen xalima di bind ci lak français wala arab wala sax yenen lak yu dul yoyu ñu wat tay ji ngir andat ak yeen benen jotaay ci khadimiya euh, di diko defé fi ci kër serigne Mortada mu serigne fallu ci teewaayu domam sering salih mbacké ñu ngi ziar bu baax al amdil muridin asoy Muhammadil Muntaqa al Basir di ñaan yàlla borom bi wa taala may ko fan gudd banaal yim naal mu eggale yëpp te ñu ànd ko ak moom noonu tamit lañuy ñuy mbooleem kilifay diine yëpp ak kilifay aada yi comme ndax niñ ko baaxoo defee rek tey war a doon siñ fanweereelu jataay ak juróom muy trente-cinquième émission incha allahu taala ñu ci ànd ak mbokk moo xamante ni ñu ngi koy wax sëriñ Ahmadou Bamba Seen euh, di sant sëriñ Sam Bousso bu baax ci boole gi ñu boole ak moom mu bind téere bu am solo bu am te nii mu ngi jëm ci jaar-jaari kenn ci mag ñi nga xam ne magi morit yi lañ maanaam kenn ci taalibe morit yi ci jamono yu colonialiste yi xam naa ci njëlbeen dañ koy jox mu def benn présentation boobu te ni dana ci leeral euh, lu jëm ci euh, fànn gi nga xam ne ci la yëngu muy fànn bind lim jot a bind ci téere ak tamit lenn ci jaar-jaaram ci wàll xam-xam ci wàllum njàng ñu doga a dugg nag ci téré bi dëg mhm. dëg assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa euh eh, mhm. ma ngi leen di nuyu di leen ziar sëñ sëñ sëñ Mbàkke ñu tàmbale jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba yaaram maam Cheikh Rew ma Fall Lamp mhm. si Cheikh si si Muntaxa bashir yalla na fi yag lool tuwer wér ya. naal yi nga xamante ni mu ngi koy naalal liggéeyal maamam Cheikhul Khadim mu mën koo matale te taalibe yëpp ànd ak moom di ñaan sëñ Abo Falilou mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Fallou yàlla na di nuyu di suñu bunt ci sëriñ Touba muy sëñ Mourtada Falilou mi nga xamante ni mooy suñu wasila di nuyu jullit yëpp ak murit yëpp ak euh, kër diine yëpp di jaajëfal suñu mbokk yi nga xamante ni moom lañu bokkal jataay bi xëy na wax si ñun sax du yomb waaye mm, comme ni mu ko waxee léegi rek ay ndong ndongo daara lañ yu ndaw yoo xamante ni dañuy yëngatu yu wàllu njàngale ah, waaye njàngale tubaab lañuy yëngu waaye bi yàlla dogalee yi tamit tubaab gi lañu juddoo fi lañu yaroo fi lañ fi lañ juddoo waaye bi ñu amee nekkee tu tànk rek dañuy yóbbu woon ci suñu wayjur ci Thiès ñuy nekk foofu ak moom suñu wayjur yooyu nga xamante ni moom mooy bi sëñ Fallou ñu nekk fa ak moom di jàng ba suñu njàng sottal ñu fay liggéey ba yàlla dogal ci mbaaxam ñu ñibbisi fii ci dëkk bi ci Touba. li ñu fi ñibbisee nag li nga xamante nii moom lañu fi sëñ bi njëkk a def si ñun mooy mooy bindub téere jëmale ko ci yoon bi jëmale ko si sëñ Fallou ah maa ngi tudd Cheikh Amadou Bamba seen dëkk. quartier bu ñuy wax Touba Loyeen boru usine glace sama wayju bu góor mu ngi ay Baye liba sen sama wayju bu jigen mu ngi tuddu Soxna Khady Diouf euh i tamit ñu ngi leen yaanal yalla yeeram leen to jéggal leen ak mbolam kuñ fa fekk ak mbolam ku leen fa fekk jërëjëf sëñ jërëjëf sëriñ Ahmadou ci leral bam solo bobu man nañu wax ni dal doomi dekk bi nga tay ci dekk bi nga Jange, ba yalla dogal nga bind ben téré bo xamanteni muy téré bo am solo ñu war ko jangat nga bind ko ci lak tubab xamna naa ci njëlbeen rek dañuy taxaw ci titre titre bi nga xamne ne nga tuddé téré bi lan motax nga tan tur ak talibé bi ngay junj ci birit muy ben talibé mouride ci jamonoy colonialiste yi kooku moy kan deug deug ci tënk. waaw bala maa ñëw ci lii sabab téere bi euh, ma wax rek ci titre bi nga xamante ni bind naa ko. muy par muy muy parcours inédit d'un soldat talibé de Serigne Fallou à l'époque coloniale ci tënk rek mooy jaar-jaar yi nga xamante ni talibé Serigne Fallou bi nga xam ne yàlla dafa dogaloon tubaab yi yóbbu woon ko mu doon ab soldat jaar-jaar yu mu jaar foofa ba mu fa demee ak jànkonte yam fa jànkonte. moom daal la ñuy nettali ci téere bi te ndax suñu Fallou da koo defal loo xamante ni xëy na bu doon jamono yii la ko fekke woon tey dina moo koy waxal boppam waaye yàlla dogal bi ñu nekkee tout tànk mu ñu ci doon di ñu woo lu bari ci nekk ci wetam mu ñu koy leeral di ñu ko xamal xëy na booba moom sax lii la ci gisoon ba jamono di dox di dox ba nga xamante ni am xew-xewu jamono boo xamante ni ci fan yële euh, dama dañ ko fee dégg yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko mooy communicateur boobu professeur boobu nga xamante ni jëloon na fi ay kàddu euh, wax fii ne ñi nga lu mel ni sëriñ bi ak ñi nga xamante ni magi diine yi fi nekkoon ak tubaab bi dañ fee doon ci wàllu wàllu wàllu seen diine si seen wàllu diine tubaab bi da leen si doon jox ay ndigal ñuy def ak ñuy bàyyi mu nekk loo xamante ni lu lu lu lu lu amut la loo xamante ni lu metti murit yi la loolu nag biñ ko waxee daf ma metti metti metti bu metti daal la ma def metti gi ma metti nag ndax dama xam loo xamante ni waxuma la sëñ sëñ bu mag bi waaye sëñ Fallu da koo defal ab taalibeem te loolu mu defal ab taalibeem ba tubaab yooyu toppoon ci ginnaaw taalibeem amuñu woon sago ci moom segam sëñ suñ Fallu moo ko mën a defal taalibeem waxuma la sëñ bu mag bi nga xamante ni euh, kàttanam ak xam-xamam ak ak ak ak ak fi mu toll ci suñu borom kenn mënu la ko wax loolu nag kon téere bi maanaam tontu la ci wax jooju nga xamante ni euh, kooku waxoon na ko ndax xam nañ ne sëñ sëñ bi mag moom maanaam ndigal du ko jëlee ci ku dul yàlla buur bi boroomam boroomam rek ci lay moom lay jëlee ndigal euh, ci mooy ci moom mooy tax mu def mooy tax mu mu bañ a def euh, loolu nag boo gisee ñu wax ko maanaam bi nga xamante ni tubaab bi da daan jël ñi nga xamante ni ay soldaar lañ ndax booba dafa am ñu bëri dañoo foog ne maanaam Afrique ak Sénégal ci première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale rek la nit ku ñuul dem le tubaab bi jël nit ku ñuul yóbbu ko ci guerre. waaye lu weesu ñaari guerre yooyu lu mel ni guerre Indochine ak guerre d'Algérie. tubaab bi noonu mu defoon ci guerre yooyu noonu la dem waroon ci dëkk yi nga xamante ni moom moo fa tegoon loxoom muy Sénégal muy Mali muy Burkina Burkina Faso. Cameroun Burkina Faso ak Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk yu mel noonu. dafa daan dajale foofu ay soldaar ñoo xamante ni nit ñu ñuul lañ dajale leen di leen di leen yóbbu ngir ci ci guerre yu mel noonu. ci loolu nag la ñu yóbbu woon sama wayjur bu góor muy Baye Libaas Sène laat bi nga xamante ni nag demoon na. ba war ndax naa xam ci ban ban jamono lay war a tollool. waaw boobu nag xam naa ne daal moom ay ñaar fukki at la war a am. ndax moom ci këyit euh, mu ngi judd 1936. waaye bi ma waxtaanee ak uh, sa mag moo xamante ni xaritam la woon. Mm-hmm. nee na ma moom sax li mu jiitu bi mu juddoo jiitu na sax 36 ndax moom mi ma doon waxtaanal nee na moom moo moo ko mag te moom moom moom moom ji juddu na la balaa 36. Mm-hmm. waaye bi nga xamante ni tubaab bi war na ko yóbbu juróom muy sama maam muy Aliou Sène. Mm-hmm. dafa nekkoon taalibe maam Thierno Birahim uh, jege ko loolu nag mu boole woon ko ak sëñ Mapaati Silla mu féetaloo ko ak moom bi ci bi bi mu waree dem dafa ànd ak euh, daf ko yóbbu ci sëñ Mapaati si la ñu ànd ñëw ci sañ Fallou mu ne ko kii de sama doom la mooy sama taaw tubaab bi da ko war a yóbbu te mooy sama taaw mu bëggoon nga mbàkkee nga ñaanal ko hmm. ñu wax ginnaaw bi waxtaan bi weesoo mu ñaanal ko ne ko ne leen dina dem dina ñibbisi hmm. incha allahu rabbi ci noonu la demee guerre ndax boobu sax la mujjee gisanteeg euh, waajuram ndax moom bi mu demee guerre bi mu demee ca guerre ba maanaam woy juróom dafa làqu ci ci ginnaawam ci ginnaawam nga xam ne bi mu demee euh, bi loolu amee mu dem ca guerre ba nag am fa ay jaar-jaar yu bari yoo xamante ni am na fa ak ay xew-xew yu bari yoo xam ne xam na fa tënk naa ko ci biir livre bi mhm. waaye dinaa ci ñëw léegi ci kanam incha allah mhm. day mel ne kon buñ xoolee téere bi da ko tuddee rek mm, jaar-jaari kenn ci soldaari murid yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamonoy colonial mm-hmm. xëy na li ci des rek mooy taalibe taalibe murit boobu ndax mën nañoo xam mooy kan dëgg-dëgg bala ñoo ñëw ci euh, style bi nga jëfandikoo bi nga koy bind ak tamit euh, euh, lu jëm ci bunt yi nga xam ne moo nekk ci biir teere bi mm-hmm. waaw boobu murit boobu Liba Sène la tudd mu nekkoon jamono bi mu jamono bi mu bi mu bi li ko jiitu nag dafa nekkoon koo xamante ni mooy taawu waajuram muy sama maam Aliou Sène ah, mu ko doon jàppale ci tool yi di ko jàppale ci mbéy meek yu yu jëm ci ci loolu yàlla dogal nag ci bi tubaab bi di wëree ay soldaar ba ñëw ci ci ci ci ci ci sama maam xamal ko ne ko daf koy yóbbu ah, ah, ndax moom booba daanaka ay ñaar fukki at amoon na sax ay rakk waaye moom moo ci xawoon a dëgër mu mu mu ne da koy yóbbu ginaaw sama maam bi nag dafa nekkoon koo xamante ni dafa xawoon ràññeeku ci yoon wi ndax euh, wax dëgg yàlla jege gum jege woon sëñ maam Thierno Birahim daan ko liggéeyal ak euh, Cheikh Mapati Silla moo tax mu dem ci ki mu yaakaar ki nga xamante ni moo fi nekk sëñ Touba muy sëñ Fallou yóbbu fa doomam pour mu ñaanal ko libaas seen nag euh, xëy na loolu ci ci maanaam foofu la jóge dem armée ba mu demee armée itam xam naa dinaa ci ñëw ci kanam nekkaat na siwil Euh, day dem nekk semaine de fer di fa liggéey euh, ba ni ko yàlla bu ni mu wuyu boroomam waaye diñ ci mën a wax rek mooy euh, armée la la la def bi mu fi ñibbee ñibbisee yi tamit daanaka daa bëggatul woon nekk yor nekk soldaar waaye ci tànk yooyu la ko lañ ko bëggoon yóbbuwaat waaye mu ñaan sëñ fàllu ne ko man de bëggatuma doon doon militaire su ma sañoon daal leneen lay liggéey ci la ko seen sëñ Fallou boole ak ak Senghor ak bindal ko boole kook Senghor ci loo noonu la demee Thiès nekk ci semaine de fer ba waaye lu jiitu loolu yi tamit xam naa ne dinaa ci ñëw tout à l'heure buñ koy bu buñ ci ci kanam mooy bu ñuy wax ci ci jaar-jaar yi nga xamante ni ba mu nekkee ca guerre ba la xew ak ak ba mu na mu na ko sëñ Fallou ñaanee ak ñaanee na mu ñëwee ci kawam ak ak na mu ko yëgee ak na mu ko waxalee boppam loolu itam dinaa ci ñëw si kanam xam naa ci biir question yi. waa kay jërëjëf Serigne Bamba xam naa ndax na naa xamit ban style nga jëfandikoo bi ngay bind téere bi ndax xëy na style yi ñu jëfandikoo bari na narration mi ngi fi descriptif mi ngi fi ak yeneen yu mel noonu. Mm-hmm. ban nga jëfandikoo ci façon yooyu ndax day mel da ngay nettali. Mm-hmm. Euh, loo xam ne lu jàll la. Mm, mm-hmm. waaw euh, style bi ma xamante ni moom laa utiliser ci moom laa jëfandikoo ci ci ci livre bi narration la ndax lii récit la maanaam loo xamante ay xew-xew yoo xam ne dafa jàlloon euh, suma wajur nettali ma ko ma war koo nettaliwaat kon xew-xew yu weesu yu nettaliwaat la moo tax style narration yaakaar naa ne moom style bi nga xamante ni moom moo ci gën a jàppande moom la ñu utiliser moom la jëfandikoo. jërëjëf. Euh, téere bi buñ ko jàngatee dañuy gis ne da nga koo séddale ci ay bunt hmm. maanaam am na euh, ay bunt yu fasanti hmm. bunt bi ci nekk tamit am na ci yenn tomb yom te nii traité nga ko ci biir tax hmm. mëneef naa xam dëgg-dëgg continue téere bi lan lan la làmboo <coughs> téere bi euh, bunt bi nga xamante nii moo ci njëkk mooy buntu présentation maanaam ki nga xamante nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy Baye Libaas muy sama jur bu góor waaye présenté itam fam ban famille bi mu bokk euh, ak euh, famille bi ni mu ni mu ni mu ni mu meloon ci yoon wi loolu mooy pré mooy nga xamante ni bunt bi njëkk bi nga xamante ni euh, képp kuy def li ñuy wax biographie loolu moom dafa nekk pàcc boo xam ne mënu cee ñàkk moom lañ njëkk a def li ci weesu ñu wax yi tamit wax dëgg yàlla mooy bi li nga xamante ni noonu la ko tubaab bi yóbboo foofu tamit mooy bu ñaareelu bunt bi nga xamante ni wax nañ ko ci bi ci biir ñaari ñaareelu bunt boobu nag dafa am ay tomb yu bari yu nekk ci biir euh, maanaam tomb beneen bi ci njëkk mooy lu ñuy wax la lu ñuy wax change le changement du destin maanaam koo xamante ni dundam daa am nu mu nu mu demee woon dafa ordinaire woon ba si yàgg am xew-xew bu mag ñëw dal ci kawam kon xam nga ne destin bu changé la ndax loolu xëy na xalaatu ko woon moom sax ci boppam waaye ay juróom juróomi tamit xalaatuñu ko woon loolu tax mu am ñuy tuddee ko noonu beneen bi nga xamante ni mooy ci topp mooy buntu buntu bu ndaw bi nga xamante ni moo ci topp mu ñaareel bi mooy mooy la visite de sëñ fa la visite chez sëñ fallu Mbacké maanaam dem nga xamante ni dem nañ ci sëñ Fallou di fa sàkku ñaan ak ak ak jataay boobu loolu moom mooy ñaareelu bunt bi ñetteelu bunt bi nag dañoo wax tuuti dañoo wax li ñu xam ndax sëñ Fallou moom kenn mënu cee wax lépp kenn mënu koo xam sax Euh, lott nañ ci xam ko waaye dañoo wax lenn rek li nga xamante ni suñuy gëstu may nañu ko ñu wax ko ci sëriñ bi ci ay dimension li ñuy wax dimension temporelle ak dimension spirituelle maanaam ay jaar-jaaram ak i xarabaaxam ak i réalisation yi nga xamante ni def na ko ci dundam ba nga xamante ni ñëpp mën nañ cee teg bët loolu ndax am na loo xamante ni fës na nit ñëpp xam nañ ko waaye am na loo xamante ni xëy na ñu bëri jotuñu ci ndax daal ay gëstu gëstu yooyu bi ñu ko defee yi tamit génne nañ ko ci livre bi ba ñu yëpp war cee mën a jot Euh, bi loolu weesoo nag ñetteelu bunt bi nga xamante nii moom lañu wax mooy mooy euh, maanaam ni mu doon dundee ca ca guerre ba maanaam lam fa jot a jànkonte ndax foofu dafa bëri ay jànkonte yoo xamante ni moo ko nettali boppam bakkanam waroon na fa des waaye ginnaaw yàlla ñaanu sëñ Fallou yooyu ñoo ko fa fekk si moo ko nattu moo ko moo ko nettalil boppam te yooyu bu ko jot gi mayee dina mën naa cee ñëw ci ay ci ay ci ay ki li ci ay buntu bi ci topi tamit ñu wax ci walu guerre bobu nga xamanteni amon na manam les principes les péripéties de sa vie au front ndax ñaari guerre la guerre bi ci ñëk bi moy Indochine bobu xamnañ ne bobu 1946 la ba 1954 benen guerre bi nak bi nga xamni moy guerre d'Algérie bobu tam tambali 1954 ba 1962 kon moy ñaari guerre yo nga xamanteni netale nañ yépp la ko la ko sabab ak euh, namu démé ak fa mu loolu yëpp ay gëstu may nañu ba ñu xam guerre yooyu lu taxoon tamit ñu yóbbu ci ay ay kii bu mujj bi nga xamante ne nag mooy mooy bunt bu mujj bi ma ci wax moom mooy ñibbisi waatam ci ci ci dëkk bi ndax ñibbisi boobu tamit bi mu ginnaaw ba mu nekkee ca guerre ba ba mu ba mu jeex ñibbisi na ci dëkk bi am lu bari loo xam ne defaat na ko fi eh, ginnaaw laata suñu boroom di ko di ko di ko muy wuyu ji suñu borom loolu daal moo doon yaakaar naa ni bunt yi nga xamante ni faram fàcc nañ ko ci biir téere bi. Mhm. jërëjëf sëriñ Ahmadou kon buñ déggee ni nga waxee day mel ne téere la boo xamante ni andi nga ci ay buntu yi yaatu lenn li jëm ci sa waajur woowu nga xam ne moom moo doon soldaaru murit boobu demoon ci ñaari geer yooyu nga xam ne tudd nga ko andi lu jëm ci lenn ci jaar-jaaram ak fi mu bokk waaye andi nga ci tamit lu jëm ci histoire Serigne Fallou. ak jëmmi tamit euh, guerre yooyu xam naa sax fi la ñuy taxaw dëgg-dëgg muy xisab guerre bi nga xam ne moom nga net li ci biir nan la demee dëgg-dëgg ak lan moo ko sababoon ak tamit moom ndaka la def ba dellu siwaat ah, ndax euh, ci guerre boobu guerre yi daal daanaka li ko sababoon li ñu wax xam xam nañ ne bu njëkk ba euh, moomuñu woon suñu bopp li ñu wax naan ay ay ay euh, colonisation moo fi nekkoon maanaam tubaab bi dafa nootoon euh, maanaam yenn réew yi euh, doon def ko ab moomeel bi ñuy def bi deuxième guerre mondiale weesoo nag daf si am ay réew yoo xamante ne dañoo commencé woon di fippu di laaj seen seen indépendance pour moom seen bopp li ñuy wax processus de décolonisation loolu moom nag bi mu xewee tubaab bi tamit xëy na bëgg ko woon bu sañoon loolu moo doon continuer ci la nag xam ne dooleem xëy na du mate mu bëgg a jàmmaarloog ñëpp moo tax yi nga réew yi nga xam ne dafa nootoon dafa dem jël fa ay ay ay seeni doomu réew yooyu def leen soldat former leen def leen soldat pour ñu mën a xeex pour euh, maanaam loolu nga xamante ni ak ak réew yooyu nga xamante ni dañoo bëggoon def seen indépendance mën a moom seen bopp pour ñu mën a xeex ak ñoom loolu moo nekkoon sababu mu wër ay jël ay ay ay doomu ñu ñuul Euh, ci colonie yi di leen yóbbu di leen former ñu nekk ci euh, euh, armée française di combattre ci drapeau fran français loolu moo nekkoon kii bi waaye yàlla fa dogal moom bi nga xamante ni yàlla daf ko yóbbu dafa am yu xew-xew yu bari yoo xamante ni dafa xew li ci njëkk mooy bi nga xamante ni ndax moom li nga xamante ni dund na ko foofu tey bu du woon ñaanu sëñ Fallou xam na ne yëg gañ ko fa yëg ak teg fañ fañ ko fa teg xëy na du am loolu ndax wax na ma ne am na bis dem na ba nga xamante seen chef bi nga xamante ni dafa mooy seen chefu armée bi daf ko bëggoon bëgg bu bu xamante ni dafa ëpp dafa dafa dafa sax dafa ëpp euh, am na bis nee na mu chef bi dafa ñëw dawal oto oto seen oto yooyu ñëpp xaman nañ ne oto yu njëkk yi mooy lu ñuy wax jip moom la wax Land weer nga xamante ni ci ginnaaw dara du fa ne mos naa ànd ak chauffeur am chef tubaab bi dawal oto bi ba ci ba ci ba ci ba ci ci bunt bi ci biir base bi mu dugg di am lu muy def góor gi nee na damaa jaare ci ginnaaw rek yéeg ci oto bi booba mënuma sax dawal waaye man fayu ginnaaw fayuñu oto bi may man man man mani ba oto bi di di di dem bi muy dem nag nee na yàlla dafa ko dogal foofu sax daa bëriwul woon ay garab ak yu ma xamut maanaam dafa xawoon ñuy wax zone plane la woon bi muy dem nee na oto bi dem moom mënatu koo téye oto bi di daw di daw di daw mënatu koo téye nee na tubaab bi nga xamante ni moom moo génn chef bi moo génn yi beneen tubaab ñu dawal beneen oto bu mel noonu euh, Land bu mel noonu topp oto bi ba yegg si ci moom benn tubaab bi benn soldat bi tëb dugg ci biir oto bi dal di koy dal di koy arrêté bi loolu xewee moom soldat yam fa nekkaloon ñu si bëri dañoo foogoo ne nag xëy na dinañ ko fitnaal def ko loo xamante ni kenn mënu la ko wax waaye bi mu egsee tubaab bi da koo téye ci loxoom ne leen kii de lii mu def day wane ne moom dawal rek moo ko yitteel kon joxe ordre na demel leen jàngal ko dawal ñu koy jàngal ay dawal ay weer weer ba mu mën a dawal ne dem na ba ne man li may dawal sax man mii sax daf ma yéem ba maa mën a dawal mën a dawal ba mujj gi tubaab bi nga xam ne mooy chef bi man la mujj jël comme chauffeur maa ko mujj sax di ko dawalal ndax te loolu xam nañ ne li tax mu am ko rek mooy ñaan gi ko sëñ bi ñaanal ak euh, mbëggeel moo tax mbëggeel googu sëñ euh, tubaab bi am ko ci moom boobu fenn fitna kenn fitnaalu ko foofu leneen itam am na bis mu wax ma ne ma moom benn bis mook benn xaritam nga xam ne mos nañoo ci boobu ñu ngi ci biir guerre bi toog nañ ci benn montagne di fa di waxtaan bi ñu toogee di waxtaan ñoom daal nee na si ginnaaw lañ leen féete dañ leen féete ginnaaw rek dóor leen ay bal dañoo jékki-jékki rek dégg bal yi ñu daanu ci kaw ci ginnaaw montagne ci weneen wàll gi nee na moom xaritam bi moom sax lañ jot a moom moom moom bal yi da koo laal moom dafa dafa faatu moom yàlla dogal benn bal laalu ko ci la ci la jug ah, daw làqatu di làqatu ba ba ba ba ba ñibbi kenn gisu ko mu xam ne bal yooyu moom xam naa ne moom waru ci woon a mën a mucc la ko ci muccal nag xam na ne ñaan gi ko suñ fàllu ñaan ne dina ñëbbi sawaat looloo ko fa muccal ndax ñooñ na leen doon tiire ci ginnaaw la lañ leen féete loolu weesoo yi tamit mu amaat leneen loo xamante ni beneen xew-xew boo xamante ne xew na fa ndax nee na bi suñu seefu tubaab bi daf ma a bëgg bëgg bëgg bi nga xamante ni daanaka dafa jéggi dayoo nee na am na bis daf maa woo ne ma libaas ma ñëw mu ñëw ba wéet ak man ne ma man de sama wayjur dafa nekk koo xamante ni mag la waaye dafa nekk tubaab boo xamante ni ca France dafa bëri alal am na ay usines yu bëri waaye man bu guerre bi weesoo damaa bëgg a bàyyi armée bii sax dem toppatoo sama sama usine wayjur boobu ndax moom mag la waaye damaa bëggoon su guerre bi jeexee ma yóbbaale la France ndax gis naa sag njàmbaate ndax gis naa sa sa sag li ñuy wax sincérité maanaam ki nga xamante ni ku ñu mën a woolu nga tubaab bi mu ko waxee loolu ba wax ba pare nee na sama papa ne na man nee na ma gàntal ko ne ko man de suma ma paree fii damaa fas ne ñibbi ndax laataa muy jëm foofu moom waajuram da koo dénkoon njaboot gi ne ko dénk naa la sama njaboot gi mu ne moom mu wax ko mu gàntal bi mu gàntalee taxut tubaab bi bàyyi dañoo demaat lu yàgg. suñu toogee ab diir rek tubaab bi da koy woowaat ci ci ci wéet ak moom rek waxaat ko loolu waaye su ko waxee rek la mu koy tontu daanaka loolu rek la koy tontuwaat ba bi Niger bi jeexee tubaab bi xam ne kii daal moom moom moom moom li muy lim loolu noonu maanaam du ko def mu mujj tubaab bi bindal ko adresse am ca Paris ne ko adresse bi maa la ko jox bis boo demee ci sa réew boo demee ba sa xel nekk ci bëgg a ñëw bind ma ci adresse bii rek soo ma ci bindee ci France ci Paris mom sam papa sax adresse bobu da ka dan res li ñu par cœur da ka dan waxtu du ko xool mën na wax adresse bi te du ko ndax da ko dem bo manam mokkal ko miin ko euh, mu mu mu ne ko bo ma bindé rek dina la dina fexé nga ñëw lépp luy sa pass ak lépp loy def ak ba wayaay ba yexi si man ma koy man ma koy def inshallah rabbi waaye sama wayju lépp lim bi mi dund bi mi fi musta bind ci adresse bobu waye nee ma man xamna naa ne mbëgg gi ma bëgg tubaab gogu bëgg bëgg amul amul si man sago benn yoon xam naa ne lenn lu dul euh, ñaanu sëñ Fall yooyu ndax man rek nekk ma fa woon soldaar waaw lii tamit wax na ma ko waaw mu nekk yi tamit ay jaar jaar yoo xam ne am na yeneen yoo xam ne nekk na ci biir lii bi sax daanaka mat na juróom benn wala juróom ñett dañ dooma dañoo mënta ñëw ci yëpp moo tax ñu ci tënk yooyu rek nga xamante ni li wóor na ko ne euh, ñaanu sëñ Fall la yaakaar naa mun naa waxi tamit euh, bi muy bi bi jeexee ba mu ñibbisi mm-hmm. bi guerre bi jeexee mu ñibbisi dañ ko téye fële ca ndar nee na tubaab yi tee nañ ma fa ndar juróom benn weer biñ ma fa téye ndax dañ maa ñëw di ma laaj na ma dangaa war a dem ci wàllu police wala gendarmerie foo ci war a dem nee na mu leen man de bëgguma cee dem fenn fi ma bëgg daal mooy dem si sama si sama sama sama sama kër wayjur nga xam ne dénkoon na ma njaboot gi boo saytu leen nee na ñu jàpp ne xëy na kii guerre bi nga xamante ni ci la jóge moo ko xaw a jàpp ñu ne rek nañ ko téyaat ab diir ñu ko fi diir bu yàgg bi ñu ko fi teewaatee diira bi yàgg ñëwaat laajaat ko mu tontuwaat tontu bi daanaka lem ton tontu woon rek loolu rek la leen tontuwaat bi ko yàlla defee benn tubaab ñi ñoom ñoom ne ko kii de bu yeboo ngeen bàyyi ko ndax bu ngeen ko fi teewoon ay at itam lii mu loolu la leen di tontu far ñut ci lañ ko doo ko bàyyi mu ñibbisi bi mu ñibbisee yi tamit mën nañ ñëw ci ñibbisi ba waaye day xaw a gudd bind naa ko fii lépp ak uh, na mu na mu na mu dajale waatee njaboot ga ak njaboot ga demoon nag yëpp bind naa ko ci téere bi waaye bi mu lijjantee loolu Euh, ba ba ba ba ba indiwaat ñi nga xamante ni demoon nañ ci njaboot gi dafa dem ci sëñ Fallou maanaam dem loolu laay wax visite de remerciement ndax nit bu la defalee loo xam ne teg nga ci sa bët loo xamante ni xam nga ne lii sax jomb na la wax dëgg yàlla boo ñibbisee war ngaa dem jukkal ko gërëm ko wax dëgg yàlla mu ne dem nag ci sëñ Fallou euh, yegg si bi mu yeggsee ci sëñ Fallou ginnaaw bi mu waxtaan ak moom daay yegg si rek nee na sëñ Fallou ni ko ndongali seen yegg si ngaa mu mu ne ko mu ne ko mu ne ko waaw mu ne ko xanaa nëbbatoog làqatu de mokkal nga ko waaw euh, dinaa ci ñëw mu ne ko mu ne ko waaw waaw mu ne nu ñu def ñoom ndax juboo nañu mu ne ko ñibbisi nañ de Mbàkke waaye jubowuñu mu ne ko ñooñu de duñ juboo mukk ndax loolu liñ ciy jàngal mooy guerre moom ni muy ni muy demee rek mooy euh, ku am doole la rek ak ku néew doole kii am doole day foog ne dooleem ji mun na koo mun na koo jëfandikoo ba noot ki néew doole su ko jëfandikoo ba noot ko ah, su ko defee kee day nangu ci ñàkk ci ñàkk pexe waaye su ko ki nga xamante ni itam dafa néew doole su demee ba nga xamante ni moom itamit bañ na ba ba kee xam ne kat dooleem gi bëri na waaye waaye loolu mënut a antu day mujj day mujj maanaam dal di dal di dal di dal di dal di dal di ba teg loolu la mu doon def ci suuf ndax noonu rek la ñuy mujjee waaye kenn du ci du ci du ci du ci am la neex ah, ci loolu itamit li nga xamante ni Sëñ Fall wax na ko sama wayjur mu ne ko nëbbatoog làqatu mokkal nga ko loolu itam day firnde ni ah, ndax moom génn na ci yu bëri yoo xamante ni daanaka nëbbatoog làqatu moo ko fa moo ko ca génne ndax fañ ko dóor bal ba ca montagne ba foofa làqatu na fa nëbbatu na fa waaw fa nga xamante ni am na beneen boo xamante ni itam xëy na sa boobu nettaliwu ma ko boo damaa xamoon ndax jot gi dina ko maye waaye boobu tamit dafa am solo trop da am solo lool waaw ndaxte nee na eh, fi ñu nekkoon ak di eh, maanaam suñu base militaire fi nga xamante ni nekkoon na fi ak am na benn dëkk boo xam ne xaw ko woon sori loolu ay civil ñoo fa nekkoon nee na moom dafa amoon ay xarit ndax moom dafa dafa nekk koo xam ne dafa ubbeeku dem na ba am fa ay xarit bo bu ñu demee ba ngoon wala guddi rek mu dem di goon na di goon li foofu di waxtaan ak ñoom ndax ñoom ci guerre bi moom civil yi moom ama amuñoo ñoom ñoom ñoom dara ndax ndax civil yi moom duñu leen def dara mu doon dem foofu nag di fa gonnal di fa waxtaane nee su doon dem ba gonnal dañ ko daan gunge waa kër gi nag dañ daan gunge bu ñu ñëwee ba nga xamante ne jóge nañ seen kër gunge ko ba nga fi nga xamante ci diggante euh, euh, base bi base bi ñu nekk ak kër gi ci digg bi foofu la ñuy yem di ko def saa su ba benn am na benn bis nee na ma ma dem ma dem ma dem gonnal ba ba ñu ba ba ñu war maa gunge waaye bi ñu may gungee rek dañoo yem ci buntu kër gi nee na bi ñu yemee ci buntu kër gi nag man affaire bi man nee na mbir mi xaw na maa jaaxal ndax dañ doon ñëw bu ma seen fi fi suñu kii suñu camp bi ñu doog a wàññeeku yem foofu ah nee na muy dem waaye loolu nee na laataa muy dem gondal bis boobu nee dafa mel ni am benn wax ju ñu ko wax benn baat bu ñu ko wax ne ko tey de booy dem na nga yóbbaale ngànnaay nee mu jël ñaari ñaari ñaari pistolet yoo xamante ni mu def ko ci ceinture am yóbbaale ko te wax na ma ne nee na bis boobu laa ko mus a def maanaam musumaa yóbbu ngànnaay bu ma daan bu ma daan bu ma daan bis boobu rek laa ko mus a yóbbu nee bi ma baat bi waxee lu ma yóbbu ko ci bunt bi rek ñu yem foofu ah man tam jaxawoon na maa jaaxal sax waaye dama wëy rek dal di dem neen bi ma dem bi nga xamante ni dem na ba egg fi ma fi ñu daan yem neenam ci wet ñaari wetu yoon bi yëpp ma seen ay ay ay nit ñoo xam dañoo takku ay garab ay xob maanaam dañoo takku ay xob ba xob yi rek ngay gis ñuy wëndeelu ñaari xob yëpp di jëm si yoon bi neen bi ma gën a jege ci laa doog a xam ne ñii lii ay ay ay ay nit la nee damaa génne samay arme rek dal di dal di dal di tiire bi ma tiiree tiiree tiiree ba mbir mi xaw a kii ma dal di daw dugg ci biir daw làqatu ba boo ba dem ci ci ci ci base ba. nen ba ma ñibbee ci camp ba ma ñibbee ci camp ba toog nag li laa jàngat xam ne kon ñii ma doon gunge daanaka ñoom ñoo ma ñoo ma ñoom xam nañ li xew ndax bis boobu mosuñoo nangoo nangoo nangu bis boobu nanguwuñoo egg si nanguwuñoo génn ci kër gi. nen bi mu ñibbisee nag la xam ne kon dañ koo laloon pexe. nga xamante ni bis boobu bu yóbbul woon arme bakkanam xaj na fa bis boobu yóbbul woon arme daanaka du ñibbisi ndax arme yooyu mu yoroon ba tiire leen moo ko moo ko moo ko sauvé te nee na bi muy jug di waaj a dem lañ ma ne ah booy dem na nga yóbbaale arme te koo def wax na ma ne mosuma koo def lu bis boobu mosuma koo def nee boobu sax la gëj a génn ci camp ba moom bay waxtaanee kii kii gondal loolu la nettali na ma ko mu nekk loo xamante ni tamit moo tax li ko sëñ bi wax rek xam na ne moom moom suñ baa ngi ko jege woon mm-hmm. xam na ne ñaan yi ñu ngi ko toppoon xam na ne loolu yëpp su ca génnee xam nettewuñ ko lépp ci ci ñaan yi rek la ko la ko amee ginnaaw yàlla subhaanahu wa taala mm-hmm. ak jërëjëf sëriñ ci nett yu am solo yooyu nga xam ne jot nga ko gaaral lépp nekk ci téere bi ak yeneen yoo gaaralul sax diwaane wane rek euh, ne sa waajur woowu dem gim demoon ci guerre bi mel na bi muy dem am na ci ndigalu sëriñ Fàllu te ñaanuloon na ko te ñaan yooyu feeñ na ci biir nettlu yu baree baree bari ba ni nga xamee noonu la ñibbisee xam naa bala ñoo ñëw ci tomb yu mujj yi daa mel li ñuy dese ci waxtu bareetu lool lool euh, lu mel ne xeeti nettlu yooyu du ñàkk mu am ay sources yoo xamante ni mooy doon dellukaay bi ndax lépp da nga jëlee sa waajur la ndax daa am yeneen yoom te nii dafa am ci ñeneen ñoo ko jëlee ñu bokkut ak moom ak it lu jëm ci histoire sëñ Fallou yan source nga dellu bi nga koy bind. jërëjëf lu mel ni nettali li nga xam ne moom moo ëpp ci nettali ni ma ko fi ma ko jëlee rek mooy ci sama way wayjur ndax daanaka bi may am ñeenti at ak juróomi at la ma commencé teg ci wetam di ma nettali ba ba doon magum jëm am ay ñaar fukki at ak fanweeri at bis bu sart def ma doon woolu di ma ko wax li ma doon wax sax mën mënoon naa di nelaw di ko bind ndax jàppoon naa ne sax góor gi xëy na euh, daanaka magale ko jàpp wala ba bëri wax sax laa ko doon wax waaye daf ma daan wax naan xaadim lii ma lay nettali du bëri wax su ma nettalee ba pare daa ma xam naa lii ma lay wax xam nga ko waaye lii ma lay nettali du bëri wax nii la ma ko doon waxee moo tax nekk na loo xamante ni di ginnaaw yàlla bi nga xamante ni maa ngi ko doon nettali sëñ Sam Bousso mu ne ma lii dafa bokk ci taarixu mu da nga koy bind ndax boo ko bindul rek mën nañ mën na mën naa réer ci ci bi ma koy bind moom sax nee na ma waxtu yu ma ko bindee sax ndax maanaam waxtu yi ma jël pour bind ko sax nee na da koo da ko da koo yéem waaye dafa nekk loo xamante ni su ma doon nelaw sax boo ma ko laajee mën naa cee jaar moo tax ndax yàgg gi ma ko yàgg góor gi doon nettali waaye leneen lii tamit am na ñoo xamante ni ñoo xamante ni ay ay nit ñu doomu àdduna yoo xamante ni ay ay ay mag lañ eh, yoo xamante ni jëlee naa si ñoom ay ay ay ay ay ay ay wax ndax ñoo xamante ni yàlla dogalee ñu ma nekk Thiès def see am ñaar ñoo xamante ni du ma leen fàtte mukk euh, euh, euh, ñu nettali ma wax man ne ma ñoog sama wayjur ñoo nekkandoo woon foofu ca guerre ba te ñooñu xam naa leen xam naa fu ñu dëkk bi ñu ma ko waxee tamit liñ ma ci wax yi tamit parce que am na ci koo xamante ni sax moom studio studio la mu jën a yor di di photographe dama kaa ñëw mu ne ma yow ndax xam nga xam nga ma mu ne ma déedéet ma ne ko déedéet xamuma la mu ne ma mu ne ma mu ne ma boo demee nga laaj ma sa baay waaw yéen xamu leen seen baay seen baay man mii maa ko xam man mi bokkoon ak moom armée armée française yéen xamu leen ko man maa ko xam waaw ndax lii dama ko wax nii dama ko waxee ba ma demee tamit ci laa doog a laaj laaj góor gi ne ko nettali ko lii mu wax mu ne ma lim la lim la wax noonu noonu noonu la demee eh, leneen lii keneen leneen lii tamit euh, noonu rek la demee maanaam daf si am yoo xamante ni daf ma ko nettali waaye dafa yoo xamante ni mag ñi nga xamante ni bokkoon na ak ñoom euh, armee française boobu yenn saa yi ma dase ceeg nit mu am lu ma ci leeral euh, waaye li nga xam ne li nga xam ne moo ëpp ci histoire bi daf ma koo nettali waaye li yëpp si jëmmi guerre bi nag loolu moom dama def ay recherche ndax bi ma xamee ne ñaari guerre yooyu la damaa def ay recherche euh, xool guerre yooyu lan moo ko tënkoon ak ci lan moo ko sababoon ak ni mu mujjee ak lu taxoon ñu koy ñu koy ñu koy def ak fan la mujjee ci loolu moom laa ko laa ko kii suur source yi sax mu ngi ci biir livre yi euh, yi nga xamante ni wax naa ko ci waaye li nga xamante ni moom nettali jaar jaaram moom moo ko nettali boppam te am na sax ñeneen ñu mu nettali xëy na la lam ma ci nettali nettali ko ci kenn ndax man sama dund yëpp dama koo def ci ci ci wetam waaw looloo tax ok jërëjëf sëriñ Ahmadou Bamba euh, kon mëneef naa ne source yi daal bu dee lu jëm ci nettali la sa waajur doon Euh, maneef naa ne li ci ëpp ci moom nga ko jële am na ci yoom te ni da ko jëlee ci mag ñoo xam ne mook mook ñoom ñoo bokkoon nekkandoo foofu ci armée française bi hmm. euh, te yu bëree bëri rot ci biir téere bi hmm. bu dee tamit lu jëm ci yeneen yi ci aju guerre beeg xeet yooyu moom am na yeneen dellukaay yoo dellu hmm. euh, téere boobu nag ndax doon na téere wam te ni dañ ko mool ba mu tasaaroo ak buñ ko moolee ñan ñoo ko édité mm-hmm. ak kan moo ko financé ci xaalis boppam mm-hmm. waaw téere bi nag euh, dañ koo mool euh, lu ñuy wax édition artige te mu nekk ci Ndakaaru ñoo ko mool ndax loolu yi tamit yàlla dafa dogal ma amoon benn xarit boo xamante ni moom tamit jàngalekat la dafa mos a bind téere bi ma demee ba bind téere bi ci moom laa waxtaanal rek ne ko ndax mu ndax mu boole maag ci ñooñu nga xamante ni xëy na xam na leen te ñu yëngatu ci wàllu édition téere maanaam soppi ay téere ci la ma boole kii boobu mosuma koo gis sax ci laa la ma jox téléphone ma woo ko xam ne ñeneen ñu ma boole woon waaye ma xoolal ni moom li ma waxoon moo gënoon a jàppandi ci wàllu man man moo taxoon ma ma ma ma ma ma ma dem ci moom euh, ci la ko moole nii wàllu financement yi tamit yaakaar naa ne amul benn financement man mii maay maay maay maay jël samay moyen bopp ak sama yeen say yi tamit ma wo sama xarit euh, ne ko dama soxla nangam duma ko wax sax lu tax soxla nangam mu abal ma. ma ma ndax walu téré dafa xawa dafa xawa metti wa metti mu abal ma mi sama jangale kat mu abal ma ma ma daldi di ma daldi di koy ma daldi di ci mol ablim suma paré delo ko non rek la defone waaye amul ben financement bo xamanteni ki kii ndax man kima ko def. Sëñ Tuubaa jaral na ma ko Sëñ jaral waaye tontu gi ma xamante ni bëggoon naa ko tontu kooku wax loolu ci sëñ bu mag bi te ñu dippee ma sëñ bi loolu rek daral daral na ma su doon milliard sax jaral na ma ko waaw donc wàllu financement yi daal ak wàllu bind bi daal euh, noonu la demee waaw bi mu génnee tamit yàggul daanaka euh, ñaari benn semaine rek la war a la war la war a am hmm, boobu bi mu génne léegi maanaam wàllu wàllu yaata yaatal gi nag moom xaw naa des ci laa nekk nii sax moom waaye moom xaw naa des pour nit ñi gën koo mën gën koo mën a xam waaye ci lañ nekk nii. jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu xam naa ci yaatal gi sax nañ ci laaj ab laaj maanaam ku bëggoon a am téere bi ndax dana ko mën a am fan lay jaar ba mën koo fàggu su fekkee ne lu ñuy jaay la. waaw waaw téere bi euh, fi mu toll nii ku ko bëgg a am euh, ci man nga ko mën a amee ndax am na yu ma ci fàggu. Euh, pour ñi ko bëgg a wecceeku mm-hmm. euh, euh, ndax tey liñ koy weccee sax daanaka bu ñu sañoon bu ñu mënoon tey dañ koy day disponible ku ko bëgg a jot rek nga mën cee jot doo wecceeku mm-hmm. waaye ñëpp xam nañ ne dafa téere dafa xaw a metti mm-hmm. am na si loo xam ne sax dama ko àbboon ci samay xarit mm-hmm. war koo mën a delloo yooyu loolu rek moom moo tax sax ñu koy wecceeku waaye amuñ ci woon yéene wu sax di ko di ko di ko weccee waaw maanaam sept mille rek lañ koy wecceekoo maanaam junneeg ñeenti téeméer moom lañ koy wecceekoo ndax méthode d'édition bi nga xamante nii tamit képp ku xam ne affaire édition dafa xaw a metti mhm. seen i xamuma leen mhm. amul benn jàppandal gu ci am lañuy ñuy defee rek lañ ma waxee mhm. maay man ma ni rek di man ma ni ba ba ba mool ko waaw ok jërëjëf ci leer yu am solo yooyu kon xam naa képp ku ko soxla rek boo jokkook sëñ Ahmadou Bamba da ko mën a am incha allahu taala xam naa ñu ñëw ci laaj bu mujj bi bala ñu laa jox nga tej kàddu yi Euh, mel na ne téere yi jamono ji ñu toll gis nañ ne am na ci yu bëree bëri yomte nii ñu ngi koy moolee ci biir réew mi di Sénégal ndax euh, seetlu nga ne qualité mool bi ñuy moolee Sénégal boo ko comparé ak yeneen téer yi ñuy moolee ci biti ndax doon na lu baax lool lool. Hmm. waaw ah ci suñu xam-xam bu gàtt de. Hmm. Euh, biñ ko moolee wax dëgg yàlla ba ba wan ñu ko. Mhm. wax dëgg yàlla am nañ ci li ñuy wax satisfaction maanaam. Mhm. am nañ ci contente contente bu lañ te doon xaar daal. Mhm. gis nañ ko ci ndax sax am na ñoo xam ne dama leen ko woon ñu may laaj ndax fii lañ ko moolee. ma leen waaw fii lañ ko moolee. Euh, ci loolu itam laay wax euh, laay laa moom laa fàtte wax sànq képp ku ko bëgg itam même méthode d'édition bi itam disponible na foofu. waaye gannaaw ñoom ñoo ca Ndakaaru. xëy na fii moom ci Touba ak li ko wër. Euh, ci man da nga ko mën a ame waaye ku nekk booru ndakaaru moom hmm. xëy na boo demee ci maison d'édition bi tamit hmm. mën nga koo am foofu waaye daal mool bi moom wax dëgg yàlla euh, qualité bind bi tamit leer na neex naa neex naa neex naa liir hmm. to itam boo xoolee niñ ko defee couverture bi qualité la waaw loolu am na sama benn mbokk boo xam ne génn na téere bi ma ko wanee dafa ma ah wii yàlla qualité bi moom am na solo macha allah xam naa nag jot bitim réew ak tubaab yeeg yooyu xëy na du du yomb Mhm. waaye ñii moom ñu ngi def jéego yu mag a mag a mag a xam naa ne ku leen jàppale ci moyen mhm. vraiment dinañ gën a mën a gën a mën a doxal liggéey bi ci fànn boobu mhm. waaw jërëjëf ci tontu bu am solo boobu kon loolu day wane na rek ba léegi jamono ji ñu toll am na ci biir réew mi ay barab yi moolikaay yoo xam ne dëgg yàlla ñu ngi mool téere ci anam yoo xam ne dana doon anam yu am qualité dana dëgër te it fegg bi couverture bi ne ci kaw dana baax lool Euh, kon jàpp naa ne jàppale leen tamit dana baax ba tax ñoom ñu gën a mën a am doole gën a mën a jàppale bindkat yi nga xam ne ñooy bind ay téere xam naa su ko defee dañ lay jox nga tàggatoo ci kàddu gu mujj gi ñu doog a tëj jataay bi ba yeneen jëmmi jamono. waaw jërëjëf suñ mbàkkee ñu ngi lay ñu leen di sant bu baax mm-hmm. euh, di leen gërëm ci jataay gii ngeen ñu may mm-hmm. ñu mën a leeral leen ci téere bi mm-hmm. di ñaan yàlla seen liggéeyukaay bi nga xamante ni yéen a ngi koy yore. Mm-hmm. te muy yëngu rek lu nekk ci wàllu yoon wi. Mm-hmm. yal na ko Cheikhul Khadim teel boppam. yal na ngeen ci am avancement bu mag. ba fépp fu ñuy dégg média rek ñu leen fay dégg. ndax lii rek a mat a fësal. Mm-hmm. ndax euh, jamono ji toll na jamono joo xamante ni dëgg yàlla lu baax lu mel nii rek moom moo jara wone kon nag yoon wi ngeen nekk daal. ñu leen ciy ñaanal bu baax a baax a baax yal na leen Cheikhul Khadim teel boppam. ginnaaw loolu ñu ngi siyaar di di di bu baax di yeeslu bu baax ci suñu wasila muy suñu Mourtada Falilou. Mhm. mi nga xamante ni wax dëgg yàlla bàyyiwuñu benn yoon. ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy yóbbante ak cant ak ngërëm waaye itam di ko defal noonu suñ Abou Mbacke Falilou mi nga xam ne mooy xalifa euh, suñ Fallou. Mhm. di ko di ko def noonu yi tamit. ci suñu kilifa gi nga xamante ni mooy fi sëñ Touba tey mhm. nekk fi te ñëpp gis li muy liggéey muy sëñ Muntaxa koy ñaanal yàlla may ko wér ba naal yi nga xamante ni mu ngi koy naanal maamam mu mën koo mu mën def ko ni mu ko di ko di di ko di ñaan si réew mi jàmm mhm. di ñaan ci dëkk bi jàmm waaye tamit di di di di lancer un di la li ñuy wax naan di wo mhm. ndaw yu mel ñun ak ndaw yi nga xamante ñoo fi nekk ci sàkku xam-xam ak ci bind yi téere ak ci ci gëstu ndax kat nekk na loo xamante ni eh, xëy na waroon naa ko wax sax waaye mm, maanaam di fekke jotaay yu mel noonu dafa am solo mm-hmm. ndax man mii kat bis bi ma njëkkee fekke jotaayu bu ñuy bind di présente livre mm-hmm. dafa def ci man loo xamante ni ma mosu wax ne ah man de suma ma ko yàlla mayee mm-hmm. su ma sañoon bind téere ndax jotaay boobu ma fekke woon rek loolu yàlla di doo waaye xaw ma woon lu may bind yàlla di dogal di dox lii xew ba ma jóg di ci bind kon dañuy wax ne jotaay yu mel noonu dafa baax ndaw yi di ko fekkee jotaayu xam-xam jotaayu diine su ko defee loolu itam day am jeexital si ñoom mm-hmm. day tax ñu mën fee bàyyi loo xamante ni ëllëg si biir ñëpp dañ ciy mën a jëriñoo mm-hmm. loolu lañ doon di di tuubal ñëpp mm-hmm. di siyaar ñëpp di ñaanal ñaanal suñu mu taxaw ba si yàlla nañ ko gudd fan ak tawféex ñu si dëkk bi jàmm yàlla def fi jàmm def ci réew mi jàmm def ci jullit réew jullit yi yëpp jàmm di nuyu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu xarit yi mhm. suñu suñu dëkkandoo yi suñu mbokk yi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy ñu ñuy jàppale ci fànn yu ne mhm. waaye tamit di di di sant bu baax mhm. euh, sëñ sëñ sëñ Sam Bousso bi nga xamante ni xëy na dama naan téere bi su ma ko bindee yàlla ak moom la ndax bi may ñëw ci moom aw ma woon yéenay bind téere damaa ñëwoon rek ngir wax wax ko li nga xamante ni xewoon mom mo mané di lii kui koy bind bu ko defee du réer mhm. donc man ñu koy sant ci loolu bu baax di di sant njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp mhm. jërëjëf jërëjëf sëriñ Ahmadou Bamba sen, ci kàddu yu am solo yoyu xamna naa mbokk yi yen yi nga xamne yena baxo and ak ñun ci sen site internet bi di al khadimia, ci mission bi di al lahu wal qalam lii mooy liñ leen andiloon ci jataayub fanweer ak juróom doon ci ànd ak sëriñ Ahmadou Bamba seen ci téere bu am solo boom te nii gaaral na yaakaar naa li ëpp solo lool ci téere bi ba liñ gën a mën a jariñoo ci téere bi li ci ëpp gaaral na ko ci émission bi xam naa dañ leen di digaat beneen jataay rek ak beneen téere ak keneen ci bindkat yi comme niñ leen ko baaxoo waxee rek émission bi jagleeluñ ko ñi bàyyi ñii ndax daanaka ñiy bind ci yoon wi moom bari nañ bari boo xam ne fu ne la waay mën ci wàll gu ne tamit ñi ngi ciy bind ñi ngi bind ci arab ñii di bind ci france ñii di bind ci wolof ñii di bind tamit ci yeneen langue yi ci des kon képp kuy bind ci yoonu murid rek jàppal ne jataay bi sab jataaya euh, di la sant bu baax di sant tamit Serigne Sam Bousso nga xam ne moo ñu boole ak euh, yow ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy taxawu ci wàllu xam-xam mi ngi koy taxawee ci wàllu xam-xam li mu wax rek noonu la mooy xam-xam moom bind rek moo koy mën a saxal ndax nettali yi ñuy nettali euh, bu fekkee ne binduñu ko bu demee ba mu yàgg ak yokk mën na ca am ak wàññi mën na ca am ak réer mën na caa am wala sax ñi nga xam ne ñoom lañ ko nettali woon ñoom ñu jóge fi yóbbaale ko te buñ ko xasee ba bind ba mu nekk ci téere rek kep ku ci bëgg a jariñu ku ne dang ci mëna jariñu kon ñu ngi la ci encourager bu baaxa ba la wax na yoon wi nga jaar moy moy yoon wa eh, bind mo metti na am ay e jafé jafé yu ci ne yu bari bari waye nak nit bu ci nekk rek tam ci pas-pas ak yene suñ borom man nako ci jappalé bu baaxa a baax di sante Serigne Mbacke Mbegere mi nga xamne mo and ak ñun jotaay bi di jallale ba nit ñi man ci jariñu di sante tamit Serigne Mamour Touré mi nga xamne moy njitul sen bi di alxadimiya di sante bi mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy topp di ci joxe seeni xalaat di ci joxe seeni proposition di la eh, eh, tamit joxoñ ay nit ngir ñu dal leen ci jotaay bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant xëy na buñ limee tur yi dañ dul matal moo tax duñ bëgg lim kenn waaye ñoom ñëpp xam nañ seen bopp xam nañ tamit ñiñ jubloo wax kon daal lii mooy li leen andiloon di leen digaat beneen jotaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu بايعت خير الورى باللوح والخلم لوجه رب الورى ذي اللوح والخلم